am na tamit benn wax bu ma bëgg a wax tuuti rek euh, ci mbirum maa ngi dégg mbari di wax nii ci affaire euh, président CNG ak yooyu. Mm, coow li bari na gis trop trop trop. gis nga nit lu ko yàlla may loolu la ko yàlla may gis nga ndaw Ndao Tyson jox ma ma lekk jox ma ma naan mun naa toog ay weer wala ay juróom weer wala at sax duma ko gis mais yàlla mooy cëral doomu aadama tey Mouhamed ndaw lu mu def si làmb amul mbër bu ne bu ko mën a wax dara. parce que tey boo xoolee millions yu bëri moo ko indi ci làmb. kon yow nga ñuy jël CNG bi jox ko Tyson. man de barki Serigne Touba Mbacke man aw ma benn problème ci loolu man bokkuma CNG soxlawuma bokk CNG waaye tey ñu jël ku mel ni Tyson def ko président CNG lan la yàqal mbëri. waaw mais mais mais aussi am na ñeneen ñu bëgg ko ci mel ni Keba Kanté aussi. non man yooyu yëpp waxuma man Tyson laa parce que mbërum làmb la def na ci làmb lu ne bëri na fi. d'accord maa ngi dégg ñii di wax dimbaliwul mbëru làmb ak kiiwul làmb Tyson ñun ñëw bokk ndey bokk baay Gris sama rakk la te nit ku baax la ji nit ku baax la nit ku dëggu la Gris amul benn problème nit ku baax la Gris ba muy bëreeg Balla Gaye maa ànd ak Balla te tey ba mu amee sama zible dafa ñëw bu ñu daje woon léegi si mbéy da nga yaakaar ne bokk ndey dañuy songat def lu ne. waaw mais ku ci mel pour ñu jox moom def tey non loolu yëpp du dara. xalaat yu wéewu fi wala. yëpp du dara rek mais man pour man ñu jox ko Tyson ñu jox ko keneen ak keneen. baax na mais man de tey jii bu nekkoon dañ doon dem sànni carte Tyson bokk ci euh, ñi ñi ni sànni euh, ñuy xëccoo barke sëñ Tuubaa sama carte man Baboye moom laa koy jox. mais ci bari li ñu koy reproché mooy dañ dañuy dafa toogoon ci ruqam lijjantiwul làmb. xam nga bu ne nee Tyson lijjantiwul làmb loolu loolu loolu waxu daanu sareet la rek Tyson ñaata yoon drapeau chef lu xew day dem. bokk CNG kay teewul lijjanti nga làmb te tey jii làmb bu ñu demee bay tudd ay millions xanaa lu mu def ci làmb kay moo ëpp importance sax parce que tey jii boo xoolee làmb tey nit ñi bu demee bay laaj ay euh, prix bu bari ci moom la tey boo xoolee mbër yu bëri ci ay Tyson ñun nañu roy ñuy investir defar ay kër ak yëpp mais da doon gis ay mbër am na fi xoolal mbër yu mag yu bëri yu fi jaaroon tey. mais boo xoolee mbëri ndaw yi fi ne tey ñu ngi dem ay États-Unis même bu làmb dox ñu ngi dem lijjanti seen bopp defar seen waa kër kenn ku nekk li nga dox pour sa njaboot la mais Tyson lu mu def si làmb ba àddinay tukki ba àddinay tukki du fay munul fay man de Baboy sama yoon nekkul si keneen man man la concerne man Baboy bu nekkoon tey dañuy voté pour euh, élection pour CNG barke sëñ Touba Mbacke sama carte Tyson laa ko jox te pourtant mën naa toog at sax du ma gis Tyson mais nit nag nit nga. te nag ak lu mu metti metti nag ñoo bokk dëkk Pikine te am na fu nu jaar fu bari tey bu soxlaa dara woo ma ne ma tey dama bëgg ci damay bokk ci ñu koy jàppale man keneen nag sama yoon du ma wax kenn lu bon duma xas kenn duma ma kenn mais kenn ku nekk li nga choisir man li ma choisir pour man tey jeunes mérite na lu raw sax seen